waaye léew mii nag léew mii nag ku fi yolul xaalis léew mi ku fi yolul xaalis ah, ah, ah, doon doon dëmm sax moo moo lay gën doon nga doon dëmm waaw ñu lay tam di lu di wël waaw ku lu waa ñaaw mag mu yolul gone ah waaye waaye nit ku fi doon ab pauvre doon doon dëmm sax moo ko gën waaw boo doonee dëmm ku loo romb xam nga kii dëmm la kenn kenn doon jëlee waaye boo pauvre kenn looy considéré yow lay fekkee lu mu wax mu mooy bu toog fi nag jàpp samay baaba maa ni sax daka daka ko kaale te moo jaale te ni fe jaale te ni jaale daka la ko jaale te ni ma jaale waaw fee fee la. loolu neex ngay fenn. loolu seen ay waay borom tey baax. saa wuu la jeexee lan laa jëkk nag sañ fi nga. damay dem xew ah waaw moom mooy laay lay def sañ fi nga. waaw ma ma xaw ma su ma doon tey baax. ma. Fenda moo may sal. sa kii su ma doon tey baax. Fenda moo may sal. ñëw su ma doon tey baax. Fenda moo may. dégg nga loolu. da ngaa jongo ma. ga waa jàkk lii la la fi fenfe nag tey baas mooy wëndeelu bi. toj sama wéer mooy ma ka. wàccal. li ma gis eh, eh, takkoo ay fen nag dañ ci war la say cristal yu xam nga léeg-léeg xalaw nga wax ak nit na ko nit. naa wër ci mbedd yi di génn ay cristal lu ma daal. ah yow xooloo wër ngaa jong ma ah mu ma dama bëgg koo xam ne da ngay laal say wax ci saf. alors sama yëf la maa ko moom. la dëgg la moom sama mu ah. mm-hmm. yumpaay moom moom bu moom mu xale mën moom jéem a fay naam ba tax ma fii. waaw ah. waaye du la naam. dara du loolu waaw léegi photo ma man ma. rafet. photo ma photo yu rafet na da ngaa tàmm la waaye nag ma photo photo yu rafet. ay jaay di la. cëm waaw paa yeggoo. pause dafa yàggee tamit nag. waaw waaw. Ah, kaay si Eh? fii ngay dugg. fu fu fu fu waaw waaw. ñàkk folo maa lay doon sa xale eh, bu kanam bu kanam maa jaawale. bu kanam bu kanam ah moom moom. sama yoon de. ëpp naa may jox sama ah, waaw dem naa ngay sam ne xalaat. ëpp naa di. waa fii la indi. bu ko laal ñaari yoon day demaat. Ah, benn yoon laa ko laal. waa ñëwal Sina. waa Sina Ba. waa ñëw na Sina Ba. benn. yow sunu mbal kii. ah yaa fi am mooy mooy. yow bal kii sunu mbal. nekk fu la ma ne lii doo ma ci xale. waaw la daf jokk ma sama jigéen. waaw penna bolom bolom falata baan bu léy bi. Ah. ak talmat gàddu yi moo woon. waaw kii kii kii ay kii ku ma ko ku ma ko joxoon la ma wala xaw ma daaw daa daa waroon a juum juum rek ma ñàkku kaay fekk ma waaye. xaw ma nag diw ko nag diw ko nag xaw a bi nag dama ko bombee jàmpe ma koy diw sàb ba mu mooy mooy liba bi nag di wàcc. fa ngay way sang-sang yi deewal sax moo fale wala sotti ndox bi moom pour sama baaraam yi dina fa dugg def nii laatale waaye léegi nag tey. Give me life.